حمدي وشكري لمن كل بشارة لا ردا دون شخط عند سرسارة لو سنائي وردواني بلا أرقتي مسقعد لي من بني ديمان أنجارا لله كلي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 alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim xayril maghdubi alayhim wala dallin amin bismillahir rahmanir rahim wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi walju'i wa naqsin min al amwal wal anfusi wa samarat wa bashiri sabirina lazina isa asabatuhum musibatun qaalu inna lillahi wa min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun sadaqa laahu asim asalaamaaleykum taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe ngi leen di nuyu kenn ko ne ci turam di jiital ci nuyoo bi sahibul fadila xalifatul am cheikh mahamadul muntaxa mbake xalifatul am de ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare di ko ndokkeel bu baax ci weeru tedd wi ñu nekk di sax ramadan mubarak ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu yàggal ko te may ko wér ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal maamam xaadim rasul mu liggéey ko ba def ci lu kawe njortam ñaan googu ñoo ngi koy ñaan mu lamb mboolem sëti Sëriñ Tuubaa yëpp di delluwaat tam di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi sahibul fadila sëriñ Abbas Mbakke xalifa maam Cerno Ibrahim ñu ngi nuyu di ko siyaare di ko ndokkeel moom itam ci weer weeru tedd wii di shahru ramadan mubarak di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu bay ko ci sunu kanam ba li mu bëgg a liggéeyal waajuram yu tedd ya di maam Cerno Ibrahima ak Sëriñ Tuubaa mu def ko ba def ci lu kawe njortam loolu itam ñaan googu ñu ngi koy ñaan mu lamb mboolem njabootu maam Cerno Ibrahima yëpp ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel bu baax di jiitalaat ci nuyoo bi itam sunu wasila Cheikh Moustapha al Karim xalif Sëriñ Mouhamadou Awa ngi koy nuyu bu baax ci weer wu tedd yu ñu nekk di sax mu mubarak di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal ko tamay may ko wér moom itam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal waajuróom ba ko liggéeyal maamam bi tedd yooyu yàlla na ko def def ci lu kawe njortam ci barke Serigne Touba ñoo ngi nuyu bokki jullit yëpp nag ak bokki taalibe yi yëpp di leen ndokkeel ci weer wi nga xam ne njëlbeen gi yërmande la digg bi njëggal la fan yu mujj yi xetxun mi na naar la kon ñoo ngi ci jëg ñoo ñoo ñoo ño ci siyaare bokki julit yëpp te di leen ci ndokkeel bu baax a baax mooy weer wi nga xam ne sunu borom dafa wax ne doomu aadama lépp lu mu def moo ko moom ba des koor nee na koor man ma yàlla maa moom may xam li ma ci fay sama jàmm bu ëllëgee di weeru alquran di weeru laylatul xadar kon nag maa ngi ci ndokkeel jullit yi yëpp rawatina yoonu murid yëpp ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax baax ku ne xam ne ni itam bu koor ñëwee xel yëpp danañ dellu ci sunu jàmbaar jooje di Cheikh Kosso Mbacké Asta Lo ci bis bi nga xam ne waajuram bu Sëriñ Mouhamadou Awa Balla moo ko joxoon ndigal mu doon ko def muy ay ndogu mu joxoon ko ndigal ci mu di ko def bi mu doxee ab diir mu jox ko ndigal na ko su bis bi ñëwatee na nga ko yëgal kuy mbokk yëgal ko koy wëlëri yëgal ko bokki taalib bi yëpp nga xam ne ci jamono yu njëkk yooyu bu ma saana ñëw sëriñ bi mooy jël otoom wër bokki taalib yi yëpp Euh, fu ne mu dem fa bi mu demee ba nga xam ne itam loola jot gi maytu ko ko am na jëwriñam ju jun daan wax sëriñ Thierno Niass moom la ko daan yónni muy dem ci bokki taalibe bi mu fi jógee mu jox ko sëriñ Fadilou Diop mu yore ko moom itam bi mu fi jógee mu jox ko sëriñ Bada fay moom itam muy jàmbaar ju lool ba tey jii ay njabootam di sëriñ Dame Kane ak sëriñ Mor Faye ak sëriñ Mor Gueye ñooy dox liggéey boobu ba léegi bis boobu nag moo dëgmal si muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor daje ak ñaar fukki fan ak benn ci mois de mai muy alxamisu tey jii ñu nekk bu dellusee eh, mooy bis ba waaye nag ku ne xam na ne eh, yoonu murit moom ci ndigal rek la ñuy wéy ndax Sëriñ Tuubaa moo ko daa tafalu shay'an bi xayri isni fal isnu sartun fi xubuli shaani moo tax sunu yaakaar sunu sëriñ ki nga xam ne bu ne woon bis bi bàyyi leen ko ñu bàyyi ko su ne woon jàpp leen ko itam ñu jàpp ko mu Cheikh Moustapha Al Karim moo jox ndigal sëriñ Abdou Samad mu ñëw jottali na ko wax sëriñ bi nee na eh, dafa bëggoon bis bi ñu def ko ni bis yi nga xam ne ñoo daa yi jàll eh, ndax ku ne gis na li xew ci jamono ji eh, mu ne kon nan ko def ne bis yi nga xam ne moo jiitu woon moo tax mu ne nan jox ndigal bokki taalibe yëpp ak wëlër yu sapp kenn ku ne bu bis bi ñëwee na ko màggal fa sa kër li ñu ci war a jiital nag mooy jàng alxuraan def ay salaatu ala nabi ak jàng xasida yi sëriñ Tuubaa yi ñu def ko addiya sëriñ ko sa Mbàkke Aslo kon maa ngi jox ndigal képp ku aju ci kër gi wala képp kuy soppe wala képp kuy wëlëre maa ngi lay ñaan bu dee eggee ci bés boobu loo mën ci wàcce ay kaamil loo mën ci def ay salaatu ala nabi loo mën ci jàng xasaayit ñu def ko te def lépp addiya sëriñ ko sa Mbàkke maa ngi ko jox bokk tarib te kenn ku ne ci ñun foo nekk rek na nga ko màggal bis bu foofu yow ak sa njaboot laajunu nag ñuy wax di dajale ay mbooloo waaye ku ne daal yaa sa waa kër bu bis bi ñëwee na ngeen ko bis bi ci jàng alxuraan ci def ay bernde loolu ñu ngi ko jox ndigal ci taalib yi yëpp ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp waa Europe waa Amérique euh, waa Asie waa bay wun ken ak ci réew mi yëpp fukki régions yi ñeenti yëpp daal ñoo ngi jox ndigal taalib yi yëpp ku ne na nga sa kër te màggale fa bis bi ndax loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la nu sëriñ Moustapha jox ndax sëriñ Moustapha kat bu ne woon bis bi bàyyi leen ko liñ koy bëgg-bëgg itam ñu bàyyi ko ndax ku ne xam ne ne bés bi daanañ ci def lu ñuy tuddee cérémonie waaye bi ma wooyee ne ma daal loolu ñuy wax cérémonie dana ma sañoon ñu ñu ñu bàyyi ko boobaag léegi kenn dëggatul ma def ko kon nag bis bi itam bu doon woon bàyyi leen ko ñu bàyyi ko ndax ngërëm moom rek lañ ciy wét te ku ne xam ne ne bis bi moom ci ndigalu sëriñ ma daawa Balla ci la jaare woon ba ñëw sëriñ ko sa Mbàkke Aslo mu di ko màggal euh, sunu borom dajale daje mu dajeeg bis bi nga xam ne ci la delluwaatoon ci boromam ndax tey jii ñu nekk tey di ñaar fukki fan ci weeru koor ci bi làqu woon bi bis bi dellusee dajanteeg bis bi nga xam ne ci la ko sëriñ Madaama Balla joxoon digal mu daan ko defal ndog yi mu dajeeg bis boobu ñu ne kat kon nanu boole euh, ndog yi boole ko ak fàttaliku ko ci ñaan moo tax at mi nga xam ne moom laa ko njëkk a taxawle boobu sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké mi ngi fi yal na yàlla dolli leeram ci ba sax te yàlla tas na ci barkeem keroog ba ma demee di ko ko yëgal di laaj eh, ndigal ak di sàkku ñaan mu laaj ma ne ma ndax da ngeen a jàpp bis bi nga xam ne ci la wàccoon di ko ko ñaanal ma ne ko déedéet eh, bis bii waajuram wu tedd sëñ mu daaw balla moo ko joxoon ndigal mu di ci def ay ndogu yàlla daje nag bis bi nga xam ne ci la wàcc liggéey bi bis bi dellusee dajeeg bis bi mu ko daan def ñu bëggoon a boole ñaar eh, yëpp dundal loolee ndigal la ko sëñ mu daaw balla joxoon ak fàttali ko ko ci ñaan ba mu waxee ba daana dane ma ndigal loolu nga xam ne moom la sëriñ ma daw balla joxoon sëriñ ko so jël naa ko boole ko ma ndigal yi asalaat ko ci yow ma dem ci sëriñ Abdul Khoudous yal na ko yàlla yokk leer mu wax ma ko ma Moustapha jox ma ndigal loolu ak sunu baay sëriñ Bassirou Mbacké Astou Lo moo tax eh, danañ ko yeex di woote waaye liñ ci jublu lépp rek mooy bëgguñu ci yëkkati benn kàddu amuñu ci ndigal ndax ginnaaw bu nu ko yëkkati woon itam sunu kilifa yooyu nenu bàyyi leen ko ñu bàyyi ko kon bala ñu cee def dara dañuy dem ci ñoom ñu jox nu ndigal ñu doog koo def loolu moo tax bi nu joxe ndigal te jiitam itam ne kenn ku ne na ko defee fa mu dëkk def ko ci ay njabootam moo tax itam incha allah na rek la ñu koy doxalee kon nag maa ngi ñaan daal fu taalibe nekk rek ndigal loolu ñu jàpp ko te te xam ne loolu ndigal loolu mooy li bàyyi ko ci sëriñ bi waaw fu waay nekk daal na nga ko fàttaliku ci sa kër ci jàng alxuraan ci jàng xasida ci def ay istixfaar ci bernde sa njaboot loolu maa ngi koy tàmbali ci dëkk bii ñu nekk di Sarsara maa ngi jox ndigal Alaaji Kara nga wax ko waa dëkk bi yëpp kenn ku ne na toog këram te ko fa woote wun waaw woote wun ku daal na nga toog fa sa kër te màggal ko maa ngi koy waa Daaru Muti di ko digal réew mi yëpp kuy soppe kuy xarit kuy taalibe daal loolu buy ndigalee nañ ci tënk ñun ñëpp nag waaw incha allah taala ñaan nag yàlla nii ma ko jàngee ci aaya bii nga xam ne moom laa ubbee muy wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsi min al amwali wal anfusi wa samarat wa basri saabirina allazina isa asabatum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi sunu borom mooy wax ne danaa indi léeg ay nattu ci yéen ci ay tiit ci ay xiif ci ay alal yu wàññiku ci ay bakkan yuy dem ci ay nawet yuy gantu waaye loolu su ma ko defee maa ngi wax ñi nga xam ne ñoom day su ma wàccee ci ñoom euh, musi euh, balaa boobu ñoom da may wax ne ma yow yàlla ci yow lan bàyyi ko waaye yow yàlla ci yow la ñuy ñoo ñooñu day sunu borom tabaraka wa taala dig na leen xéewal dégle ne leen ajjana eh, kon nag yàlla na yàlla boole ci loolu te ñaan yàlla ndog mi ak balaa bi sunu borom jëlee ko ci Sénégal waaye jëlee ko ci àdduna bi yëpp itam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def bu baax barke Sëriñ Tuuba ñu ngi koy ñaan bu baax a baax di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal àdduna bi yëpp yàlla ko yàlla mi nga xam daal moom lu am ci mooma ndax kenn amul pexe kenn amul carte ku du yàlla subhaanahu wa taala ñi ngi ñaan daal mm, ndog mi yàlla ko fi yàlla jëlee ci ba jeex ci àdduna bi yëpp eh, ngi ñaan ci mboolem daari kaamil yi ni ma ko daan waxee jiital ci tuuba ndax Touba muy buntu bi di ci teg njaareem ak daarul moxti ak daaru manaan googee ca Touba di daaru manaan mam Cheikh Abdourahmane Mbacké ak daaru manaan gii ci wetu daaru muti di daaru manaan maam Cheikh Cheikh Awa Balla ak mboolem daara yi nekk ci biir daaru moo xam eh, daara yi kaamil ak mboolem sëriñi daara yi ak itam sunu waajuru baaxoo di Cheikh Abdourahmane Mbacké mu Cheikh Abdoul nga xam ne bis bi itam wax dëgg yàlla da ciy taxaw taxawaay yu rafet ñoo ngi koy gërëm di ko sant bu baax di ko ñaan ci barke maamam yàlla yàggal ko fi tamay ko wér bu baax moom itam ñi ngi sàkku nanu ko daan ko daan boobu mu def ko nanu ko daan defee waaw ah, ñaan ku ko mën daal na nga jàng alxuraan wàccee kaamil ku ko mënul te am ku la ko defalee itam na nga ko def te ñaan lépp mu dem ci téere yiw sëriñ ko sa Mbacké aslo loolu maa ngi koy ñaan ci daara yëpp di ko ñaan ci képp ku ko mën itam ñu def ko waaw te ñëpp taxaw ci rek waaw li ni nga xam daal sa mooy du moom mooy di dajale mbooloo yi waaw dajale wuñ ko fii ci Sarsara dajale wuñ ko fi fen waaye na ku nekk nag sa kër ah maanaam na ngay def bay def tey xéewal eh, noona mën nga ko def te def ko fàttaliku ci bés bi mën nga faa def itam jàng alxuraan mën nga faa yëg jàng say xasida moo xam da nga koy durus wala noo ko jàngee mën ngaa def say istixfaar waaye lépp rek nañ ko def ngir dundal bis bi rek waaw ndax bis bi moom man mën na lépp am na taalibeem boo xam ne sëriñ Abdou Diop yaram yal na ko yàlla yaram dafa am benn bis sëriñ ko sa yóbbu ndogo yi ci sëriñ Modou Awa Balla mu daal di ne sëñ Modou man de sama ñaan nangu na ndax damaa ñëwoon fii ne la eh, damaa bëgg nga ñaanal sëriñ Koso ndog yii mu dem ba ay saxaar di ko safe sarsaara di ko indi fii ci Daaru Muti mu ne ko ñaan googu nag nag nangu na mu ne ko lu tax mu nangu Mbàkke mooy tey jii carnet bii ma yor ci sama loxo téeméeri oto ngi ci yoo xam ne dama bind turu chauffeur yi bind numéro oto yi yëpp mi ngi ci carnet bi yaakaar naa ne téeméeri oto na bu ñu ko lonkale woon dana toll wagaw saxaar waaw kon euh, bis la boo xam ne bis bu am solo la waaw sëriñ Koso bari na ay garaat yu mu am ci ma Madaw bala ci bis bi rek la ko amee kon nag bis bu ñor la bis la boo xam ne bu fulaal la bis bu boo xam ne bu nu faydaal la ni ma ko doon waxee itam léegi benn bis ëppaluñu ko ndax moom dana am ndax ki nu koy defal ak di ko ko fàttaliku moo nu boole ci borom daaru muti borom daaru muti moo nu boole ci Serigne Touba ku la boole ci Serigne Touba nag sa sang la kon bés la boo xam ne euh, benn bés gënu ko rëy benn bés gënu ko màgg ci ci ñun kon nag maa ngi ñaan daal képp koo xam ne buñ ko masaana woo loo jàppoon da nga ko bàyyi ñëw wii sunu sarsara maa ngi lay ñaan daal foo nekk bu bés bi ñëwee na nga ko fàttaliku ci ñaan waaw maa ngi gërëm nag mbokk yi yëpp. mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal borom Daaru Muxti ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Serigne Touba di gërëm yoonu murid yëpp di gërëm itam këri kili këri këri fi diini yëpp ndax suñu ko masaan a wootee fu ne ci kër yooyu ay kilifa danañ fa jóge ñëw ànd ak ak ñun bés bi kon daal képp koo xam ne bu ñu ko masaan a wootee da nga fi tew nanga xam ne woon nañ la ci suñu xol waaye ña nga lay sant ña nga lay gërëm te ñaan itam fa nga nekk rek nga fàttaliku bés bi te ñaanal suñu jàmbaar jooju yàlla dolli ko ay leer bu baax a baax ci mboolem kër yi diine yëpp nag bàyyiwuma fenn waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm mbokki taalib yi ne ci réew mi di gërëm mbokki taalib yi nekk bitim réew di gërëm itam njabootu sëriñ ko sa Mbàkke Asta Lo taxaw nañ ci bu baax itam waaw ñu ngi ciy beral ngërëm nag sëriñ Bassirou Mbàkke sama rak ñu ngi koy gërëm bu baax a baax taxaw na ci taxawaayu rafet waaw kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm daayira yi tey soññi itam daayira yi kenn ku ne lépp loo daan def rek ci bis bi ku ko yàlla man loo na nga ko def jamono xat na waaye maanaam bu jamono xatee la sëriñ Modaw Bala waxoon ne bu jamono sooxee dangay sox soox ak moom boo bañ a jamono raw la te wax na ni ku tedd nga Xaadimu Rasuul mas naa wax sëriñ ma Samba ne ko ma Samba mu ne ko Mbakke mu ne ko na ngeen am fula na ngeen am fayda am fula mooy lépp mbir mu mën a doon ci àdduna loo ci sori sori rek fu ci lu baax yem ca rek yem ca fayda nag mooy lépp doo aadawoo di ko def ci lu baax waxtu wa nga ko doon defee bu jamono ñëwee lu mu xat-xat rek na nga ba def ko kon nag kenn ku ne ci ñun lépp lu mu ci daan taxawee na fexe ba taxawee ko ci waaw ñoo ngi ci soññi ñëpp waaw maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp li am eh, yàlla moo ko indi yemalewu ko Sénégal dong yemalewu ko itam ci Afrique dong waaye ci àdduna bi yëpp la ko dajale kon mbas la moo xam ne sunu borom moo ko indi bis yi nga xam ne moo jiitu itam la tax nan ko daan taxawe taxaweluñ ko loola moo waral itam bis bi itam nan ko daan taxawee taxawuñ ko waaw kon nag ñu jàppee ko noonu rek xam ne adduna moom noonu la waaw waaw noonu la ah, sunu borom nag mën naa soppi jamono ñu ngi ñaan mu may nu ndege di déwén ñu fekke ko te bu nu ko fekkee itam nanu ko daan taxawee ñu taxawee ko ànd ko ak yéen nan ko daan àndee waaw loolu ñu ngi koy ñaan yàlla sunu borom tabaaraka ko taala te yomb na ko yàlla na ko def bu baax maa ngi gërëm itam mboolem jàngkat xasaayid yëpp waaw yëpp maa ngi leen di gërëm ndax ku ne xam ne ne bis ba muy door bi ko sëriñ bi tàmbali fii ci Sarsara da daan def bu ko toggee yóbbu ko Daaru Muuti bu demee jébbal ko sëriñ mu daaw balla suñu ko jébbalee mu génn ci penc ma ñu fanaane jàng ba bët set mu dem siyaare euh, borom daaru moti doo ko mbooloo mi booba sëriñ Modou ba ci sëriñ Falilou Ndiaye euh, ba ci sëriñ Fallou sa euh, te jii bi nu demee ba bis bi sëriñ mu jëjee ko seen di ko jàng moo moo moo moo nu boole ak moom waaw moom itam ñu ngi koy nuyu di ko sant bu baax di ko gërëm euh, bis bi xam ne ne ñor na ko ndax euh, bu ko am na at moo xam da ko fekk mu tukki waaye ci bis bi ci la ñibbi keroog ba mu wàccee aéroport sarsara daal di ñëw la mu guddi guddi ñëw na mottali ko lër gi nga xam ne moom la seqoon ak sëriñ ko Mbàkke Asta Lo kon mboolem kuy yëkkati xasaay te amoon yéene ci bis bi te bëggoon cee joxe sa yéene ñi ngi lay sant la gërëm te xam ne yéene ji moom mat na innamal a'maalu binniyaati kon nit ki kenn ku ne rek la nga yéene ca leen yàlla fay a ah, ku ci amoon ay taxawaay itam ak i jubluwaay te eh, yéene woon ko ci te sunu borom indi li tax defoo ko loolu itam na nga xam ne ñu ngi sant ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ku ci mas a jàpp daal ak noo ci jàppee ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu baax a baax moo xam état la moo xam opposition la moo xam kilifa diine la moo xam mbokk la moo xam wëlëre la kenn ku daal loo ci doon jàpp na la wóor ne daal loola fàttewuñ ko te ñu ngi la cee sant te di la ci gërëm bu baax a baax waaw ñoo ngi la cee sant di ci gërëm bu baax a baax a baax waaw bëgg daal ñëpp daal jàppee ko noonu xam ne lii moom mbirum yàlla la moo xam ne sunu borom ko wa taala moo ko indi moo tax nangu nañ ko bu baax a baax a baax waaw nangu nañ ko bu baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp itam di ñaan yàlla sunu borom mu may noo nawetu jàmm nag nawet bu teel te barkeel ñun ñoo ngi njort ne incha allah de yàlla mën naa def bu ndox wàcceeg jàmm mën naa am taw di jóge fi ndax la ko da jiitu woon ci ay jamono su mbas yu mel nii masaana am moo xam euh, choléra la moo xam tawati ngas la wala tawat ju mën a doon su masaana dem ba bët sebbi rek sunu borom de ko ciy doxalee maanaam wàcc ca ndox mu sedd mu daal di fiy jóge kon ni ma koy faral di wax rek ni ndox di faye safara yàlla na ko sunu borom faye tawat ji ba mu jóge fii ci Sénégal waaye jóge fii ci àdduna bi yëpp itam te yàlla nay dellu gannaaw te yàlla bu mu yokk mukk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax itam ñaan gi nga xam ne Seydina Nuux moo ko waxoon ñu ngi koy ñaanat sunu borom mooy dafa waxoon ne bismillahi rahmaani rahim rabbi laa tazar alal ardi min al kafirina diyaaran innaka in tasrum yulidu xibaadaka wala yalidu ila fajiran kabaran rabbi ixfir li wali walidaya wali man daxala baytal mu'mina wal mu'minat wala walmuminat wala tazid salimin ila tabaran sadaqallahu al-azim wa salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh